ñu jëm ci 2024 mais ba léegi dañu am ay réalité sociologique yoo xamante ne c'est un peu difficile hmm. nga bëgg nekk njiitu réewu Sénégal hmm. foog nga ne dina dina nekk lu yomb wala PM nekk njiitu réew sax moo yombut amut ci góor wala ci jigéen lu me lu jafe jafe jafe la lu ñëpp di wut eh, nga koy wut moom kooku nga doon góor wala jigéen moom day jafe kooku di benn mhm. ñaareel ba Euh, bu dee ci wàllu jigéen man li ma gëm man personnellement. Mhm. mooy euh, du problème mu jigéen wala góor lu sax problème mu mag wala ndaw. Mhm. problème mu taxawaay la problème mu ambition la problème mu vision la. Mhm. looloo ci am te sénégalais yi nag man njort naa ne euh, mën nañoo xàmmee voilà doo doon góor rek ñu jox la de parce que góor nga de doo doon jigéen rek aussi ñu jox la dañuy xool bu baax ndax mate nga ko. gis nañu fii ci communes yu bare bare bare ah am na ci ku koo xam ne <laughs> maire eh, def naa waay la def naa mooy mooy soxna si Mayekor. Mhm. voilà xadi Mayekor xadi c'est une jeune dame. nooy bëggoon si ñamu ñamu ñamu ñamu jàkkaarloo ay borom yi laafale ñoo eh, yu ni mel. et ñu am ndombol tànk am am ay ndombol tànk boole ca. Mhm. moo gañe mooy maire ba. voilà loolu it firnde la rek ci lu mel noonu amoon na benn maire boo xam ne bii. mooy soxna Yaku Kane bon nekkatul maire mais à l'époque mu ngi woon digg Bambey département Bambey ci ville boo xam ne sax euh, euh, ville religieuse la woon euh, moom moo doon moom moo doon maire bi foofu ci département Bambey donc jigéen fii def naa ne bu nu wóoloo suñu bopp dinañ dem fu sori wóolu naa sama bopp aussi. et puis am une certaine solidarité aussi entre ñun. waaw waaw solidarité et comme du jigéen ñi rek ay woteel jigéen ñi ñoom kay ñoom laay bëgg sax ñu gën maa woteel pour pour démontrer que jigéen war naa mën. Mhm. parce que nag jàpp naa ne man fi ma jaar yëpp aussi wane naa ci li ma mais PM ban appareil nga koy defee. parce que gis nañ mu xaw a sensible gis nañ la sa communiquer samedi bii nii ci euh, diggante ak parti démocratique sénégalais vous êtes dans l'opposition Euh, mais ñu bëri dañu gis ne dafa nekk euh, benn position bu xaw a inconfortable désormais ban appareil nga war a mun a demee pour briguer suffrage des sénégalais. pour man amul benn inconfort sama choix la amul benn benn inconfort parce que la tax ñu ànd ci rassemblement boobu ñu koy def. Mhm. mooy contre troisième mandat du président Macky Sall. troisième mandat boobu nag wax dëgg yàlla man dama cee ànd ak moom ñuy campagne 2016 wër Sénégal yëpp ci référendum bi. ne président Macky Sall ñaari mandat bu ko defee day pare voilà moom it mu wax ko waxati ko waxati ko lu baree bare baree baree bare waa tey buñ buggee ñëw ba deux mille vingt trois ñuy wax waxu troisième mandat loolu moom franchement lu ñuy mun a waaw surtout que man dama jóge woon États-Unis à l'époque bàyyi njaboot bàyyi boroom kër ñëw jàppale si ko contre le troisième mandat du président Ablaye Wade waaw kooku bu ma toogaatee ba dix ans après di ko nangu kooku samay samay doom sax dinañ ma ne waa mère euh, vraiment <laughs> du lii leen xamoon ci yow